تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن من عبد الله فاخ كل من أبداه أو يبدي خالق زمنا إن من عبد الله فاخ كل من أبدعوا أو يبديوا خالق زمن إن ابن عبد الله فاخ كل من أبدعوا أو يبديوا خالق زمن على الورى صفاه من أبداه رحمة كل بعد ما داو وجوه سابي الكرام بعيدا بعد مجاهداته لدن غدا ذل الذي أبى العبادة فلا يزال والماء من ما فلا بركة المختار ليس تنخرم ونور وسعة ليس ينسرم أبا إله تعالى إلا إن ما مناري لزي تعالى للمصطفى وجاد خدمة زفت بزارة له وعداء النفد للمنتخى وجعت ما قد أذهبا جملة ما لم يرد لي فذهبا هدما ربي بنبي بنا درر ليتوجاوز الخرر ملكني الملك نعم الملك مخجل من خدمر أو زنقوب وليس ينونا ولقاك مدى سقال سيدان كون المنتخى سيد وهو يلاقي متخى يدو لدار الخلاص بيز بي والأمود لازو tawaafu bayna sayri walla saa tawaafu man lima yadurudu nisaa alamu bayna alxamimi wa dariya alamu baakin la yazaalu bi sari nafaawu qabulun li siwaana laawu xadan wala ilaha illa allahu ilaa siwa maqdirali yadibo wasaqawo ilaa siwa naarabu li xayri naal hidaanaat wal sada wa tatawajawo li xayri mafsada ردم كايد الهداء إلى الهداء باغي ليلتقم قبل من غدا سوا باقي الكفاني الإداء والنوى مع الذي لو البرايا وزمن درناني خبل خاد للأمن مع الذي لو البرايا وزمن درناني خبل خاد للأمن مع الذي لو البرايا وزمن درناني خبل خاد للأمن يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنما بك علينا وأداما نعما وكل ما سعد إليه خادا لك بلا مسقة فانخادا مسلما عليك يا مختار وليساخ كل ما اختار دنيا وأخرى بك ذا سلاما من الحساب ومن الملامة وطيبا زمان لي كما ويب وكفى أني سرمدا ما لا ويب وبكلي كان وساخ للرب حتى سير بزر أجم وعرب ودمني إلى سياب المنى وغاد لي بلا يزامن المنى بدلي بكون ذا نسمي صفا لي ولي أمتي أيسوق صفا وكفانا جملة الرزايا بي وساخلي بالمزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء جدير خاطبت بشكر وثناء اسبك عني قد نفع أنائي يا من سؤال خيري عندي دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا خريب يا مجيب salli ala allazi bi tujibu sayyidina zil mu'jizati bi salaam bil ali wa sahbi muzazi salaam wa kun yadara wa kun may wa kun lii zaayigan fawqa marami bi kun wajal bi jaayi ayaati safiya لك بما لجور دافيا أثني على من بفد الغيب يبتيني وارتجي منه بزرع سورة تيني لو كلامي وسمتي وهو يلمني وبالبزارات دون الكدياتيني لوا كتابي واغناني واكرمني وكون ولي انساني بساتيني هب لي بحرمة لفظ لا يكن ابدا يا غير موت بكس من قدوتيني كففت قبل الاذان بكونك لي وزم مرادي لي بالكاف والنان نجيتني اليوم من عودي إلى سله خد بيتها بغبي منك مكنوني فجر يا نبي ماء الغيب يا زمدي في القلب مني وزدني فوق مزنوني يا أكرم من لم يزل برا ومغتبرا يا من لو تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا عذاب ولا لوم وتبديني وجيني اليوم كسفا لا يفارقني والدون مكزي بمفرود ومسنوني نبعتني فلتزد علما ومعرفة واجعل حياتي أجرا غير ممنون تركت ما كان لي بالمي مبتغيا أركانا يسر جوي لتوبا ومني وقني أزهل ورا والد إبليس ما إسكانا لك سما ولا رادي والهواء بلا مزارك لير منزر قوبانا أجب وزلي بتسليم على سندي محمد والتابني فايخا بنا أجب وسلني بتسليم على سندي محمد والتابني فايخا بنا أجب وسلني بتسليم على سندي محمد والتابني فايخا بنا zindu xasiidati ti sukura wallam tazal ya malik zakura akramtani kirama man ma safal wa kullu ma aratu min kan fal ataytani ya rabbi min ladunka zikranaki mal faraditu anka لي تبسير وتكريما آتيتني ما الخلب أنزع كلما مدى من الدر موت ظلما كافأني من ما له كفؤا بمال غيري ساخ كل من جاد أكرمني بقل والله عاد ربي ولم يكن له كفوا احد ناجاني الله مكرم صمد تناجيا بي كفاني الكمد وجل الاكرم انفع الكرم والدرري بخير رد من زرم أزلوا كونتي القصيدة خارغة العادة المبينة يا يا خيام سلم سلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام سلي وسلم والتقبل ذا الكلام بما يفوق زن من مغروف لنازم الهروف قلد الربا يا من كفى وزى الخرور ونبا وليو يا رحمن يا رحيم يا هيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا سلام مسلما على مزازي الخلام ناجاك عبدك الخديم ذا سلام مسلما على مزازي الخلام jërëjëf seexu seexu bamba yaa ma ku la am dootu ñàkk bay ñee bamba yaa jar bi xëy ba far yaa defal yàlla lépp lum santaane yaa jëfal Mustafa la xawsu ya tànnoon yaa di xayrul xadimi fii diwaani yow gërëm loo nga yàlla te ca gërëm loo gën gi yonnen walaay yow yaay waane sëriñ bamba du seen mappandoo du seen maas na ngeen déglu mi dem mi borom aras maas seexul xadiim moo sa may gi xanaa ga bongo ko ngoore gila may kay xanaa aras nga ko giire ba nga tekke sa ëmmi may gi fa njaare ca la mbaaxan ak njoxomboore seexul xadib bi nga tekke sa ëmmi may gi fa njurubel la bawal jag ba dootu noori kajoori bi nga fenkee ci réew mi góor ñi nga seexal gétti nañ kañ ya jiitu woon ak foore jekki samba yaa ne ngaa na ngi ewlaw amulam kem fa kay ba mbër ya di loore tekki leen tuur yi jox ko daal di ko jiital farijaal yépp yam la ahmadu doore yow la yàllay demoo ca kaw ña fi jaaroon ji la wax nag malaaka yépp a ko seere jërëjëf xaadimu rasuuli kudul yow bu dajeeg noon ba woon gabon du fa góoreem mani dem del si gaa ngi mbàkke kudul yow sambari goo di turam bu ñu Sénégal tuuti kon mu yàqu du gon yow ceddo yi tubaab yi jàppe di dooreem ba nga saloo Ceerno Laay ma dem Ndar jàll géej del si jàpp réew mi libéré baarakallaahu ñépp suur nañu moo may gi xanaa gabon nga ko ngooreeb bi nga dellu fu ne jàkka yaa nga fa sambe ñuy sant ku ne jàmm xew ci sa diina day ridali alal xadim di ki may wax leen jërëjëf Serigne Touba wax leen jërëjëf Serigne Touba wax jëf na ko yàlla fay lil xaadati lu joor wal masaaliw bi tay wal jas bi wa inni saaliw ci yàlla jël na baayu soxna waa wayaadu naa ngi bu leen ko wóolu ci yàlla jël na mbàkke bala ay saa borom goteeg mbuur dem na néeg solom saak waxtaanu mu juwi korite ba ñépp bég ndekete nar na joote ndekete sëriñ saaliw moom day tàggoo tàggoo la wax kenn xamul de toogoo tawat ji ca Touba ñu wóolu Seex Saaliwu Ture Touba tawat ji bam ko doonalee ca Touba ñu wóolu Seex Saaliwu mu nekk faak moom rekk diir bu yàgg lool nga xam ni ji sëriñ bi du yomb lool wax na ko fay kàddu ma xam ca tuuti naa ca beral la ma ca xam di tuuti nee na Serigne Saliou booba mu jël loxoom teg ko ca kaw dënam mu jël loxoom teg ko ca kaw dënam wax ko ayaatan yu wér ca booba juróom ñenant fukki at yu te juróom laa am ci àdduna te jox naa ko boroom loola di tuut la ma ca ci wax ji Sëriñ Saaliw Ture la dénk wax laajoon na mbubb moo xam ni Seexul Xadiim fekk bi sax feeñ na mu boole ñaar yëpp sol sëriñ bi na am nañu wax ni mbubu yooyu ñett la am ñu ni ñaar sëriñ bi daal ku yéeme la mu jëlalal ju takku xaalis boole caay nag mbàkke bal la digle ñu jàng alxuraan ca Touba wàcce faayi kaamil keroog ca booba tabaski bis del si waat di aljuma moom la waxoon sëriñ bi moo am warma fajar sëriñ bi julli daal di sëlmal soonu di werd Mbàkke balla nërmal nii la sëriñ saaliwu nii la sëriñ saaliwu génne àdduna fajar bisub aljuma li demeti na yàlla na yàlla yokku say maqaama bi jaayi man sumaata wal xadiima la warab jaam mooy salloo sant mbër maam ku sangam ba may bu santul fecc war ma Serigne Saliou Touré baax mooy yàlla yow laa di woowu yu ma yaay saa waajiri Serigne Saliou Touré baax mooy yàlla yow laa di woo wuyu ma yaay saa Seex Bamba yar gaay lay roy ngir falle réew nag dunduroog am naajo yow Sëriñ Tuuba moo la taal ci kees kaay ngay takk ka siraaji sey ji ko Touré say wax martum ngërëm ngay daaje say noppal na borom jumaa ji noppe goree la laaji doo jar ci soow mi xam la doy na waaje ñàkk la doy na wraf le ci saa waaji man maa way way wii fajal ma yaajo yal nañ dajeeg sa booli ceeb yi taaje yàlla na fan yaram wi wér baling fi yéene lépp mate yoon wi leer amiina amiina ne amiina ci darajay Muhammadul Amiina والتام داري عن الفجور والفسق والباطل في دوري وانفي الوباء والبلايا كلها أنا وتيب سربا وأكلام وجل ريما ريما آمنا وكن بذي كفيلا دامنا واجبلا الخير من الجهاد سد وفي عن الآفات ونعم سيطان يا جليل ومسكني وكل ما أول يا الله يا حفيظ يا سلمري يا فائقا خلق من بالغار نفسي وديني سمالي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا وفي ما نسي في الرزايا وسلم عذاب النار عن جملة من بيتعله من أمناء زمن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في الدين ولا جانب فليكن إسنا ودابا يا سمد تولني ولا تجلني لعاد ورم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليابن القتام دكا والتسري صلاة لي صابا هنا له وابلي الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين